maa lay ziar. maa lay dolli ziar wér. yaa ngi si jàpp sant bu baax. tey ñu gis la nga ànd ak Mame tuus nga yëngal nga lépp lu muy def yaa ngi ci lan nga ñu mën a wax ci combat bi yàgg loolu diire mu war a dajeeg guy. waaw Mame Balla day suñu mag. joxe cër ak yar ak teggin. moo waral lii man dama am làmb mais moom moo tax ma génn tey dimanche bay passé ñëwoon naa fi fi doom Pape Diop yàlla may ko ndam di ñaan yàlla si kattanam fi mu jaarale woon Ndiaga Thiam na fa jaarale Mame Balla li mu war a def yëpp def na ko. jaam pe jaam sabab rek la day jël lépp teg su loxo yàlla maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla ànd ak ñun si barke Seydina Muhammad sallallahu yàlla may ndam. mais jàpp ngeen ne combat dina xaw a yomb ci dina yomb si diggante Mamba la. waaw parce que mun parce que làmb lan wax mun nga ñëw mu gaaw mun nga ñëw mu metti lu si mun am rek yàlla na yàlla ànd ak ñun bu dee day gaaw yàlla na yàlla ànd ak ñun bu dee day metti yàlla na yàlla coow li bëri na ci diggante mbay guy gi maam coow li naka ngeen ko doon dundee léegi jeex na tey ay minutes moo ci des. waaw coow bi mënul ñàkk ndax maam Balla ki muy bëre ñëpp xam nañ ko bëri wax. mbay guy waaw foog wax ji bëri maam Balla xamee wuñ ko wax moom jëf lañ ko xamee tey daanaka tey lépp lay leer si katon yàlla yàlla na yàlla suturaal maam Balla may ko ndam ci kaw mbay guy gi li mu def yëpp def na ko. moo tax ngeen conseil maam moom pour mu noppi mbay guy gi mambala Balla warul topp Mbaye Gouy Gui si muy def Mame Balla bu muy bëre Mbaye Gouy Gui bëreegul Mame Balla daan na Moussa Ndoye dégg li ma la bëgg-bëgg lam waaye yàlla mooy dogal tey Mame Balla du fii mu nekk mais dog-dog mënul ñàkk si doomu aadama dañ ko koy santale suñu borom yàlla may ko mu dem yoonam. yow kan nga war a bëre. man le 22 août incha bu Fass waaw Asib. gis nga ko mu ngi si man gis ko ak ñàkk ko gis laa man léegi. Eh, dama ne ndax gis nga ko laa. ma gis ko ak nga ñàkk bañ a gis li jëndu ma ko ma dama xam li ma doon li ma war dama koy def. Ah, liggéey nga liggéey nga liy daan baara ña. ah liggéey nga luy daan baara ña. yàlla baax na le 22 yàlla nañu yàlla may talak fekke ba nga ñëw arène nationale mu ne wu ma wax jëf laa gën a mëne. yàlla nañu yàlla suturaal ba retour retour de Cobra nu ah? ndam rek ndam. kese si kattanu yàlla. incha allahu rabbi. kon baax na. soo ko dugub maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay pël bu rafet. wala wax rek moom la lépp ci dugub la. ziar na. waaw sant yàlla bu baax kay ñu ngi bu wér kay. waaw ñu gis na tey yaa ngi stade mu mel ni tey Pikine ñaara nga fay bëre muy Mame Balla Ziza sa doomu ndey Kalso di bëre ban taxawaay nga taxawee tey c'est taxawaay ñëw ñaanal leen ndam rek suñu borom defal leen ndam waaw parce que tey sumay waay lañ sumay xarit lañ sumay lépp lañ waaw te man li may wax chaque jour rek Pikine moo deec sama xol comprendre nga mbëru Pikine bu ciy bëre damay ñëw ñaanal la suñu borom defal la ndam ci barki yonante bi. sa diggante sa mun naa ni suma kilifa la suma lépp la parce que bu ma demee Gàmbi këram laay dal xam nga duma seetaan benn yoon mu may jàppale ci lépp kon moom su amee bisam man dama ci war a ñëw jàpp ci ci bépp boor yëpp parce que man bu ma amee bis du gëmm du nelaw barke suñu Tuubaa lu mu xalaat da koy def bisam bi xeebalu ma ko benn yoon bark Serigne Saliou Mbacké lépp lu mu laaj pour am mu am ndam rek ñun sàkkul nañ ko ko te yàlla na ko suñu borom defal ndam ci barke yonent bi. soo ko nekk xale nekk tey fan la teg ay bëtam yaa ngi doon wax ne Sa Thiès Moussa Ndoye genre Sa Thiès tey mu ngi xool ci grand yi tey kan ngay xool. non instant yi moom man fu mu toll nii wax dëgg fa yàlla nekkatuma fi di laaj kenn turu kenn ñi ma làmb booleel promoteurs yi xam nañ ko amateurs yi xam nañ ko bépp mbër bu ci taxaw ñu koy coow ñu naan daa am kàttan nag amul kàttan ñi am kàttan laay wër tudduma turu kenn nekkatuma fi di cité kenn ku ma làmb booleel mu jaadu ma bëreeg moom. yaa sa digganteeg Franc temps yi jooli daa bëri Franc te nee nañ yaa ko raw ci ay combat dañu naan sooku Franc sooku Franc ngay wax ci tey buñ la fayoon xamante ne jar na ko nga bëree ko. ko soxlaw ma Franc te li may wax nii na ko ñëpp dégg keroog dafa ñëw arène national muy bàkku ma séen ko ma taxaw ba mu dem ma ñëw di bàkku nit ñu naan sooku Franc la doon tëkku man lu may tëkku ci Franc man ma bëre 17 combats Franc bëre 10 combats may dëkku Franc tëkkuwuma Franc de. na leer soxlawuma Franc tey soxlawuma Franc suba maa ko gën a baax palmarès maa ko gën a riche palmarès comprendre nga lamb li ma ci def boo yooyu defuñu ko si kon lu ma leen di tëkkoo man ma di set combats am 13 victoires di tëkku Franc loolu wax ju yàqu la soxlawuma ko ñi ma soxla mooy ñi nekk ci kaw bis bu ma lamb booleeg ñoom nag ma war a bëreeg ñoom dinaa bëreeg ñoom keroog maa ngi dégg góor a soog muy expliquer di wax yaakaar naa loolu mal entendu la moom suma waay la man amul lenn lu may wax luy xeeb lu wala may minimiser nit man kenn xamuma ci minimiser nit wala wax ci nit lu ñàkk fayda wala may humilier nit non non dama ni Gora Sock la général bu Malika champion la Franc bii ngay wax champion la mais ku ci nekk am nga foo teg sa bët bëgg a ñoom man ñi ma bëgg a la laa siteel defuma ci lu ñu ci deful mais ku nekk am na foo teg sa bët bëgg a ñoom am naa droit wax ñi ma bëgg a bëreel. mu ngi mel ni comme ni nga bëggee woon bëre ak Sa ku nekk am nga droit ne diw laa bëgg a. li mu wax noonu dama koy rafetlu barke Serigne Saliou Mbacké te ci droit bi wow kong la nekk parce daa bëreeg Boy Niang daan ko mu ñëw daan Moussa Ndoye dafa am na preuve bëtam ci kaw la koy teg ñun itam suñuy bët ci kaw lañ koy teg mënu ma fee nekk di bëreeg sama. instant bi yow instant bi garant yi nga bëgg a ñu may la sens. kum doon na nekk ci kaw rek parce que ku bëre 17 combats du benn combat du ñaari combat. maanaam dafa sonn ci dellu ginnaaw Sokh dafa sonn ci bëre ak ay moromam. que damaa ñëw dugg si kalaaf ñàkk kalaaf bi maw gëstuwaat bërewaat ak samay morom def ñaari preuve war naa mën a yéeg bëre ganaay mënu ma fee nekk di bëreeg samay morom rek ba kañ mënut a nekk. promoteur yaa ngi lay contacter. promoteur yaa may contacter di ma wax mbër yii ma lay wax nii ñu ngi may wax ñëpp si ñoom la yéexee képp ku ma ci làmb boole rek man pare naa pour bëreeg yow. sa diggante ak Diène Kaïré lan moo tax mënut fexe ba taxaw lan la promoteur ñu ngi si woo di la wax wala waxi amateur wala waxi fan si kese la. cinq promoteur woo di ma wax Diène Kaïré te heure buñ ma waxee benn wax laa andi wax su jaadoo si ñoom pare naa pour bërëg moom loolu rek laay wax ndax. samp maanaam yow yaa ko wut yow. non man ay jën kay rek ay ñi ma lay wax ni ay Modou Anta ak ay Yékini Junior rek ñoo ñëpp du yàqoo ci man promoteur yëpp ak may dégg contacté nañ ma di ma wax mbër yooyu mais bu buñ ma contacté wax ma mbër yooyu buñ seeti jee mbër yooyu duñ ma ci waxaat dara kon ci ñoom la. avance Moussa Ndoye bu ku ñëw ma bëreeg moom. lamb bàyyiwuma ci nit. xale laa te dama am fu ma war a jëm dama am lu ma bëgg ci làmb am ñu ma ci yaakaar comprendre nga nañ jël xaalis bi ñu bëre man dama gore wàcc bëreeg sama génération ñëpp bañ jeex kon tey ku bërewul ak man ma am fu laay toog di entraîner di xaar yàqamtiwu ma dara yaa ayca Sokh merci beaucoup